cette euh, proposition wala ce projet de loi d'amnistie wala ñu tàmbalee parce que l'Assemblée nationale a déjà convoqué euh, la commission des lois demain euh, ñu war ci jëm ndax jàpp nga ne ce projet de loi il est opportun jamono ci ak ça profite à qui c'est le débat qu'on se pose alors naturellement c'est pas c'est pas c'est pas opportun parce que ay ay fait mënu fee am nit ñi gaañante rayante bu ñu àtte woon noo ñooñu ba pare bu ñu ne dañu amnistie amuñu benn problème parce que jàpp naa ni nit nga tooñ ko gaañ ko nit ku mag ku nit ku mag mooy moom la ñuy tooñ mu jégale mm-hmm. jégale boobu pour man lu lu am solo la mais baax na ki la tooñ def la lu metti taxaw jàkkaarloog yow baalu la ak sax au moins parce que am na benn étudiant Pape Abdoulaye Touré buy wax mais bërki démb li ñu ko def yëpp même buy jégale ñi ko ñi ko def noonu nañ toog xool ko ci bët jégalu ko pour man euh, même bu ñu je sais je ne sais pas comment on peut ñu bàyyi Sénégal pendant deux ans mu nekkoon comme no man's land ay nit dee ci ñu gaañ ci ay nit ay nit lagg ci perte ci seen bët ñi seen loxo ñi perte ci seen cër ñi perte ci seen liggéey li li nit ñi perte ci crise bi dafa dafa bëri par perte et profit ñu bëgg a ñëw ne nañ ko taxañ kenn bañ cee waxati loolu je pense que c'est très injuste et ce que politique bëgg a jàngale mooy lan mën naa fee ñëw def lu ma neex su may dem comme si ci euh, ni ñu koy waxee kii wu dibi laxasu dibi. Hmm. sama pare laxas sama dibi te la la kii sànni dem sama yoon. et comment le président parce que le président il y a quelques mois saa yuy wax mooy je suis ko assurer ba mu mat sëkk dëkk bi nangam ak nangam du ma ko lii ma ko laa. dernièrement jékki-jékki rek bëgg li mu doon condamné yëpp nga xam ay ñaawteef la ne da koy raxas ba mu set noo ko mën a comprendre. non xam nga man. depuis deux mille vingt et un je savais que président yoon bi mu jël baaxul doole la doon jaay opposition bi. Mhm. jaay leen ko jaay leen ko jaay leen ko te boo koy ba mu leen di jaay doole du lépp ci yoon la ko tegoon. Mhm. teguloon lépp ci yoon demoon nañ ba Sénégal euh, gendarmerie police foo nu ma ba léegi sax moom ngay gis dañu ñu installé benn sentiment de peur. utiliser ay mots yu ngand yoo xamante ni ay mm-hmm. forces occultes force de force wax yu ngand yooyu terrorisme Café Touba mooy cocktail moo la wax yu ngand yooyu mm-hmm. mel ni ku ñu bëgg a tiital ba sénégalais yi mais accompagné ko ay centaines d'arrestations mais tout à fait et puis euh, xam nga am na pour man y a deux choses am na sénégal yoo xam amuñu xel moo taxoon ñu gëm ko am ñoo xam dañ ko bëggoon gëm ñu gëm ko mais un sénégalais bu am xel xamoon nga ni ci politique rek lañ nekkoon ci politique rek lañ nekkoon maintenant bëgg nga bëgg nañoo liquider benn adversaire politique il faut que dans son camp ñu xamba fa it teg fa yoo xamante ni day ngand ngand goo xamante ni bon dans un pays normal boo ko waxee boo boo ko déggee da ngay tiit. Mhm. yenn saa yi ñu nga xool yenn chef d'accusation ñu koy wax da ngay tiit mais après affaire bi ñëpp lay dégonflé maintenant mhm. les faits sont la mhm. les faits sont là les femmes yoo xamante ni. li ñu tëj ci kaso li ñu leen yàqal loolu c'est pas n'importe quoi ñi leen toroxal ñi leen umilier ñi leen doon dóor ñi ngi fii mhm. te nit ñi dafa demoon ba ba dañoo jàppoon ni ñoom dañoo gañe moo tax amuñu woon mesure décence su am respect ci ñi ñu yoroon mhm. léegi nag bu ñu dem ba xam ne bul bi mën na tourner ça fait peur et je pense que donc cette loi d'amnistie ah. profite à ku ñu xalaatul ah mais mais que que li ñu wax Thérèse Faye waxoon na fi Macky Sall boo demee koo ñu fi bàyyi. Mhm. yaa xam wax wax na fi Macky comme si ñun nag. Mhm. suñ suñ suñ qu'allons-nous devenir suñ situation je pense que c'est des choses yoo xamante ni on a dit mais quand même c'est extrêmement important. Mhm. parce que xëy na un président am na immunité boo xamante ni ñi ko wër amuñu ko. est-ce que tout le monde peut en fait a montré patte blanche ci ni li mu doon gérer ay waxam ay jëfam yu demee noonu te est-ce que kenn xamul kan mooy ñëw ëllëg est-ce que day fayantoo est-ce que est-ce que donc tout ça c'est des choses yoo xamante ni bàyyi ko sa ginnaaw wóorul. Mhm. bàyyi ko sa ginnaaw wóorul. est-ce que pour une fois vous pensez que l'Assemblée va prendre ses responsabilités parce que dañuy déglu ay kilifa yu bëri ah ñu naan euh, président warul voter loi bi waru ci lii waru ci laa parce que dëkk bi li wak lii nangam ak nangam wala ci loolu rek lañ nar a yam mais que le jour J la majorité de Abdou Mbow comme ni mu ko waxee va va va parler. la majorité xam nañ boo koy président Macky Sall di def defalu ko pour boppam moom Macky Sall da koy def pour sa majorité. <laughs> on amnistie on Macky Sall moo gën a informé ñun ñëpp moo ñu gën a informé xëy na réalité politique moo ko yóbbu ba foo xamante ne am na lu bëri loo xamante ne mënatu ko maintenant il cherche une solution maintenant booy chercher solution ci benn li la réalité économique réalité politique imposé di nga ko chercher mais di nga wut wut aussi nooy def ba ba régler sa ginnaaw parce que cette loi là même si bu ci opposition bi d'accordul ça arrange aussi les les, les gens de Pastef. comment lu ci mën a dégg parce que tey. am na ay xale yu bëri yoo xam te ñu ngi ci ka ñu ngi ci kaso bi di nelaw di hmm. tëj leen xale yu ndaw c'est vrai xale yooyu maintenant nga amnistier leen parce que kuy responsable ci parti politique gis ay xale yoo xamante ni jàpp nga ne defuñu dara yow li ngay njëkk li nekk sa xel mooy nu xale yi génne te surtout sa ay xale yoo xam ne pare nañ pour xeexal la. mais mais parce que ni euh, xale yi génne ngay xool. Hmm. parce que nit nit dong la c'est-à-dire que euh, ay xale.